jotaay. ca daaru marnaan Serigne Modou Abdallah Mbacké dal dinay dalal équipe 7TV bi ñëw ca tubaa ngir teewe màggalu Touba ren gile diggante sëñ bi ak personnelu 7TV bi yàgg lool. di ci santaat yàlla ndaxte dal gi ngeen fi dal ñun ñoo ci gën a bëgg te sëñ boo ngeen war a waaye bu ngeen wusee tamit teraanga yi ñun la war. te yàlla def na ko ci barke Sëriñ Tuubaa kon lépp lu manqué rek xam ne képp ku ñëw muy góor di jigéen mag di ndaw na nga feex te ubbeeku mel ne ku bàyyi ko sa kër ku ci daal bu ko wuteel sa kër loo soxla bu la nga complété na ko laaj loo bëgg na nga ko wax feeg seen kër benn la waaw di ngeen ñi ngeen fekk nañ ci bokk noonu ngeen fi bokk bu leen cab daal lu ngeen di xalaat ñu leen daal ci jàmm di rafetlu li ndax am na jot ngeen def ko te dëkk bi yaatu na te mu ngi naan ndax xam naa ne dëkk bi demee xam naa ne kon kóllëre moo leen ci bàyyi itam loolu bëgg na ci baax. njaboot ji nag dañu daal di génn seen néeg jébbal ko waa 7TV waaye yemuñu ca dañu wëlbatiku daal di nekk ci seen i service dëkkee di bernde comme nu ko sëñ bi santaane wee. mbégte mbégte am comme 18 safar moom ku ne xam na ni mbégte la ndax loolu la sëriñ bi wax euh, nañu dalal taalibe yi euh, pèlerin yi pour moi nañ leen euh, maanaam bernde mais aussi donc nañ leen taxawu. kon ndax dafa ne ñëw leen sant la ma sunu borom loolu nag sant yàlla la donc sunu diggante ak 7TV nag wax dëgg yàgg na parce que suma juum def na ñetti at te ñu ngi dal fii ci kër soxna Momy Diakhaté mu nekk dalukaay bu nga xamante ni wax dëgg yàlla dañoo am contentement am mbégte di leen dalal ndax wax dëgg yàlla aussi euh, da ngeen ñëw def seen liggéey kon nag bu ñu leen dalalee donc lu ñu war la te xam ngeen ne dalal bi mu wax dëgg yàlla dañu ñaan yàlla mu sax ba abadan. acte de générosité bi nag équipe 7TV bi rafetlu bu baax a baax. moom mi nga xam ne la muy liggéey soxla na mu am dalwaay bu mucc ayib. logement maanaam dalwaay lu am solo la ci ay équipe bu journaliste ay taskatu xibaar waaye itam lépp lu ëmb presse rek lépp lu ëmb média ñuy ñëw euh, war a ñëw ci lu euh, événement bu toll ni màggal ñu war a ñëw nekk foo xamante ni dañ fa mën a euh, am amal seeni i élément amal seen activité traité leen ci tranquillité ci dal ba mun koo diffuser ci anam yi nga xamante ni ci la gënee ñu nekk fi ci ay bi baax na lool looloo tax ñuy sant ñi nga xamante ni fekk nañ leen fi ñuy famille bi ñi nga xam ne ñu ngi danal dalal daanaka 2018 ba nëgë ni euh, ci condition yoo xamante ni mucc na yëpp ñu sant bu baax a baax naka lañu koy amalee at mu jot ren ji itam équipe 7TV bi ci jàppandalu direction générale ba mu ngi def kem kéemtalaay kattanam ngir lépp loo xamante ne la xew-xew la ñeel màggal Tuuba gi mu fexe ba dégtal ko ay téléspectateur am mu ànd ci nag ak njaatige bi nga xam ne saa muy boole lu mu mën ak lu mu mënul ngir fexe rek ba nekkinu équipe 7TV bi fii ci Touba mucc ayib. élément nag.